permanence des conseils donc loolu waral ñun dañu xaajoon géej gi moo tax maire ko yëgal yeneen mais moom Touré Modou Sène ñoom ñooy seetlu yenn dossiers yi comme celui de Farefra di nuyu mbokk yi ñoom yëpp leen gërëm di sant ñuy chef de village yi ñoo ko chef de village de Modou ñu association des chefs de village ñu population yëpp ah dana leen encouragé te di leen projet bu njëkk bi ñu ko jotee euh, wane nañ ci sunu taxawaay ak taxawaayu conseil municipal yaakaar naa ci waroon euh, document monsieur le sous-préfet ci wàllu signature yëpp euh, yëpp nañ ko te loolu ne conseil municipal bu projet bi loolu ci projet bi monsieur le sous-préfet di wax ni ñëpp ngeen am sunu coopération totale suñu njëriñ euh, lépp lu ngeen soxla commune bi su ma waxee bu rëy incha allah dañ ci taxaw lu euh, dem ni ne rek euh, liggéey ak li conseil municipal yi yéene ci commune ndax tey Notto Diobass yàlla dafa baaxee mu nekk commune boo xam ne dafa jàkkaarloo ak bëtul ila Touba dend aéroport ay nit nekk yi ci commune mu région de Thiès yi commune yi am foncier maanaam suuf disponible pour wàllu mbéy loolu dafa nekk ak boo xam ne ak mag parce que le conseil municipal ci wàllu foncier dafa am tërlin boo xam ne dañ ko jiital yenn sa chef de village yi daf di woo mas bu ñu wax ak ñoom wax leen ni nañu góorgóorlu aar suuf si ngir les prochaines générations ndax pression foncière bi ñu am actuellement dans les communes et tel que conseil municipal bi ñu deful daan fi ñuy béy ak fi ñuy sàmm dafa amat loolu waral fii à notre dépasse ñu ngi def une libération de deux mille cinq cent hectares pour appliquer le le DAC donc wax leen ni liggéey bi def. dans euh, l'aménagement autour du bassin de versant, l'espace sera pour justement une exploitation réussie. loolu mën ne incha allah loolu yëpp pare ñu bari di ko def municipal bari ko suñu des populations nañ ko accompagner pour les réaliser parce que pas être seulement une commune d'emploi nit ñi war a dund dëkk mais également fàtte également liggéeyu mbéy ak sàmm te loolu li ñu am comme hydrographie mais également comme espace de la commune mën nañu ko may ndax gis ngeen ne juróom-ñaari forage tëdd nañ ko fii ci notre défense mais rek il y a des impacts sur la crise de l'eau actuellement dans la commune parce que la plupart des puits et des forages sont assis le fait que nous avons aujourd'hui euh, une très forte pression sur l'eau crois que loolu aussi nekk na loo xam ne nous avons sur le cabinet de faire une étude vraiment technique qui permet justement d'adresser ces questions-là. Parce qu'aujourd'hui, la, la de l'eau va être la problématique des, des prochaines années. te loolu commencé na am fii au niveau de la commune euh, am na également au niveau de Diaguer dans ce certain nombre donc yooyu nekk na yoo xam ne ñu am ay xeetu xam-xam yoo xam ne dina permettre la commune de mieux s'organiser aussi la population d'avoir des éléments fiables d'analyse pour éviter aussi de tomber dans les schémas de marchandisation parce que am na ñoo xam ne bu ñu jegee problème nga xam ne fii rek mu ngi jooy di jëkki-jëkki di wax alors que c' est quelque chose de très sérieux te réew dafa am yoo xam ne bu nekkee sa dëkk moom moom ndax mi nekk fii Diobass ndax ça n' appartient pas à la commune de Diobass kon daal na loolu ñu am ay xam-xam yoo xam ne dañ ci mën a ñëw pour li may daaneel mooy ñi gën a ñaax sama bopp mais également di ñaax les populations de la commune de Diobass yi nga xam ne ñoo war accompagner les acteurs. ndax ñii dañuy defar xam-xam bi jàll seen yoon mais ñun ñu fi dëkk nañu góorgóorlu nekk nga nekk le propre défenseur du foncier le propre défenseur de l' aménagement bi ñuy def bu ñu aménagé ne fii kat dëkk bi nekkul ñoo ko raboon nga lekk bu fekkee sa tool fa nekk du la déedéet sama tool la fekk aménagement boo ne de sorte que mu nekk. ça bénéficie à la communauté, mais également pour nous, puis pas aussi cela qui était à l'origine de ce conflit. Donc ça aussi, c'est un débat, je pense que vous allez rencontrer. Mais le programme est disponible et là, tous les conseils municipaux pour accompagner. C'est l'engagement, c'est la marée pour la France.